jërë ngeen jëf euh, mbokk yéen ñi nga xam ne yéen a ngi déglu réew mi FM 97.5 seen émission pencum réew mi ñu dellu si waat ak yéen ci samdi bi muy am samedi bu jot 15h 16h ngeen di sànd ak Abdou Khadre Seck Mamadou Diaw Diallo moo nekk ci wàllu machine bi mbokki yi tey ñu invité Gaoussou comment moom nag moom mooy coordonnateur national parti bi di euh, Faxas waaye nag euh, ci élection locale yi moom candidat la ci yëmbal ci yëmbal nord mu bokk ci coalition wàllu Sénégal. Euh, moom la ñu invité tey fa yéene waxtaaneek moom euh, ci coalition wàllu Sénégal ak euh, fi nga xam ne mooy yëmbal Nord ak lépp loo xam ne jëm na ci actualité politique Gaoussou Koma Rewmi FM a ngi lay nuyu. maa ngi lay fay sëñ Abdou Khadre di la nuyu di nuyu sénégalais yi ñuy seetaan yëpp. di ñaan yàlla mi nga xam ne dara teewu ko fii lépp lu ñu fi fa yéene waxtaanee yàlla na jural njëriñ sénégalais yi. jërëjëf Gaoussou comment yow nga bokk ci coalition wàllu Sénégal. Euh, première question bi mooy euh, wàllu Sénégal euh, nan nga intégré coalition boobu ñu doog a wax ci wàllum élection yi. waaw coalition boobu nu ma ko intégré man dama nekk ci coalition bi ñu wax coalition jot na yàlla def coalition jot na ñu waxtaan ak waa Yewwi Askan Wi. Yewwi ak bi ñuy waxtaanee ak waa Yewwi ba la dernière jubawuñu bi yàlla defee nag jubóowuñu euh, finalement ñu mujjee waxtaan ak euh, waa wallu Sénégal yàlla nag def ñu déggoo ak waa wallu ak euh, waa PDS ak yeneen parti yëpp ci lañ taxawalee lu ñuy wax wallu Sénégal waaye Yewwi nag yàlla dafa def dafa am koo xam ne sama xarit la te Sénégalais yëpp xam nañ sama xarit la lu nekk def na ko pour man ma des ci Yewwi mm-hmm. mu koy muy tudd le président Ousmane Sonko waaye man dama ne ko coalition bi fu mu jëm foofu laa jëm yàlla mujjee dogal ma des ci wallu ànd ak PDS euh, AJ/PADS euh, ak CRD bi te wax dëgg yàlla rëccuwuma ànd gi ma ànd ak ñoom. Euh, bu démb doon tey di nga si ding si dugg ba tey. waaw jàpp naa ne bu démb doon tey sax du ma hésité ndax du ma la ko nëbb avant ma ci dugg hésité naa hésité naa lu bari bari bari bari ndax amoon naa ay proposition yoo xam ne Yewwi bu ma ñëwoon Yewwi du ma nekk di xëccoo. yi dama doon ñëw rek leeroon na ma ne commune bu yëmbal noor euh, du ma fa yenn coono yi ma fa daj avant may ñi may jiital bu ma àndoon ak Yewwi yi duma fa duma fa fekk waaye li ci gënoon euh, neex mooy dama doon ñoom dañ ma doon jiital tamit ci département bu Kër Massar bi dama ko fa doon jiite waaye yàlla dafa dogal ne euh, li nga xam ne proposé woon nañ ma ko fële te sama ngor sama dignite ak gëm gi ma gëm esprit de groupe yàlla dafa def na ne waa wallu dañ ma joxaat lépp foofu tey booy xool au niveau communal man maay candidat bi waaye au niveau départemental aussi man maay euh, tête de liste proportionnel conseil départemental bu Kër Massar ànd ci ak sama jigéen di ko remercier au passage l'honorable député euh, Fatou Sow d' accord léegi euh, Gaoussou Koma dina ñëw ci euh, yëmbal nord ndax xam naa ne nekkul commune boo xam ne commune buy yomb lay doon si yow léegi ñu wax ci euh, actualité politique bi doog a ñëw ñëw ci élection locale yi njiitu réew mi di Macky Sall fan yi dafa def benn sortie ci France 24 ak RFI moom daat nay wax nee na dàqul amnistie Karim Wade ak Khalifa Ababacar Sall yow en tant que homme politique lan moo ci sa xalaat ci loolu. waaw man li ma gis ci loolu mooy. di rafetlu li mu wax ndax Sénégal toll nañ fi nga xam ne ne eh, dañoo war a apaiser climat politique bi lu tax ñu war ko apaiser mooy eh, li fi xew le 3 mars gis nañ ko te jàpp naa ne 2024 élection yu nar a méttee méttee méttee méttee méttee ci Sénégal. 2000 2024 élection présidentielle yi nar a ñëw. donc yow bu fekkee ne ne en tant que chef de l'État il a toutes les informations moom xam na ne 2024 bu fekkee ne daf ko bëgg a def. cent Karim ak xalifa euh, dina métti métti lool ci moom maintenant am na nag loo xam ne ne euh, no bu boobaa euh, tension sociale bi dina métti bu boobaa réew mi xiroo bi ak ŋaayo bi mën na metti te bu boobaa moom mën na si ñàkk lu bare bare bare bare ndax boobaa day dem il sera au front avec Ousmane Sonko te it boobaa toute l'opposition l'opposition dans son ensemble que ce soit Karim que ce soit Khalifa ñëpp ils seront dans l'obligation de soutenir Ousmane Sonko te Ousmane Sonko jël réew mi ñëpp xam nañ ne arrangé wul arrangé wul Macky Sall Sall bon ñu xam nañ ne mu demee ba lu tax arrangé Ousmane Sonko ara jor réew mi arrangé lu Macky Sall mooy que ne mag Sall euh, depuis mu falu ba léegi euh, nee na rapport yi nga xam ne ne euh, corps de contrôle yi jox nañ ko ko dafa bari te moom day xool yi muy génn ak yu muy yu mu dul génn Ousmane Sonko bu ñëwee loolu lépp dina ko leeral deuxièmement Sénégal ñëpp xam nañ ne scandale yi surtout les scandales financiers daf fi bari lool lool lool ba ba jéggi dayoo loolu euh, Ousmane Sonko bu ñëwee dina ko leeral donc ça n'arrange ça n'arrangera pas Macky Sall bari na bari waaye loo xam ne ne euh, dina dina poser problème bu fekkoon ne tey ku mel ne Ousmane Sonko dafa jël réew mi mais lii lépp man li ma ci jàngaat mooy euh, li ma waxoon jamono jële ci ginnaaw su sa benn émission ma ne Sénégal quel que soit président bi fi ñu nar a toog. tant que l'indépendance li ñuy wax l'indépendance de la justice tant que soppeekuwul tant demuñu ba ci dëkk bi toll foo xam ne ne président lu mu am am doole du mën a manipuler la justice à sa guise. mais mais mais li nga wax ni Gaoussou Koma su ma la déggee mooy yow euh, kon xalifa Sall ak Karim Wade ñoom jot ci réew mi moo gën a arrange Macky Sall même su ma la déggee sa argumentaire tamit mooy ñooñu buñ fi ñëwoon tey mën nañoo bañ a sulliwaat dossier yooyu. waaw non boo déggee ma ne la Khalifa Sall ak euh, Karim Wade euh, jot ci réew mi ñoo gën a ñoo gën a yomb ci Macky Sall Macky Sall xam na kan mooy Khalifa Sall Macky Sall xam na Khalifa Sall fi muy egg ak fi mu dul egg maîtriser na les socialistes mais mais mais Macky Sall est un libéral maîtriser na euh, les libéraux. famille libérale bi donc xam na leen. par contre Ousmane Sonko dafa ñëw et c'est un jeune bu ñëwee li ma nar a indi moom Macky Sall xamu ko. Euh, euh, euh, les occidentaux xam xamuñu ko les partenaires naturels du Sénégal xamuñu ko donc en ba pare boo xoolee en géopolitique képp koo xam ne day ñëw ku bees surtout les les investisseurs dañuy xaw a dañ koy xaw a ragal il faut que nga dugg ci appareil étatique jéem a ko def nii jéem a def ba gars yi xam kii ban façon la jëflante yow diggante yow ci ay affaire pour mën la ñu meñ ndax Afrique moo toll foofu mais li mu doon wax sànq nga dog ma mooy problème mu Sénégal problème mu indépendance de la parce que tey bu ñu demee ba le président toog ba mu nekk mu naan naa amnistie kii am ma amnistie kii dinaa defaat revêtu des des projets de diw ak diw ak diw ça veut dire que y a un réel problème boo Sénégal man dama yàgg wax ne gis nga tant que jëluñu le parquet les magistrats debout ñi am seen indépendance totale nga xam ne dootuñu nekkati sous la tutelle du ministère de la justice ministère de la justice bi loolu ñu éliminer ko nga xam ne ne tey les les les les les magistrats. dootul dootuñu amatu benn su benn benn benn benn benn benn organe boo xam ne ne dina leen dina leen kaw lu dul conseil supérieur de la magistrature te conseil supérieur de la magistrature boobu Macky Sall génn ci génn ci loxo comme ce qui ce qui est en train de se ce qui se fait dans tous les grands pays du monde nga xam ne ne yoon justice mooy yor les leviers nga xam ne ne la séparation des pouvoirs ni ko suñu constitution waxee boobaa séparation totale des pouvoirs dafay am loolu tant que egguñu fa président beneen bu mën a toog mën na def ay crime financier jékki-jékki ne xaaral ma am na seen ñi pour def nii pour def ay jeu de calcul ay jeu politique. mais euh, Gaoussou Koma mënuñoo ñàkk revenir aat ci li nga doon wax sànq ci mbiru kaawu Ousmane sonk kalifa Sall et Karim Wade mm-hmm. mais pourtant sénégalais ñoom dañu soxla koo xam ne tey bu ñëwee. lépp lu jëm ci wàllum scandale financier dañ koy leeral ku mel noonu la Sénégal yi soxla te yow su ma déggee ni nga waxee mooy mën naa bañ a leeree ci Karim Wade mën naa bañ a leeree ci Khalifa Sall mais bu dee Ousmane Sonko mën naa leeree ci moom est-ce que kon du ki Sénégal yi soxla mooy Ousmane Sonko. non en fait euh, dafa mel ni comprendre fi ma waxee fi ma waxee waxuma ne ne Ousmane Sonko mën na ñëw changer dama ne la Macky Sall xam na kat mooy xalifa Sall. c'est-à-dire. liggéey na ak moom xam na kooku fan la war mën a yem xam na kooku fan la warut mën a yem. xam nga tey Abdou sëñ Abdou Khadre yow ñi nga xam ne ñoo nekk sa entreprise bi ngay liggéey ak ñoom pendant des années nga ànd ak ñoom xool koo ci mën a jox suba sa entreprise mooy gën a yomb gaw su commande bu jógee fële nga ñëw nga nga nga ñëw jox ko. aujourd'hui Ousmane Sonko euh, politique bi muy def ñëpp xam nañ ne nee na c'est un anti-système c'est-à-dire il est beaucoup plus radical que les autres. Hmm. te sunu njiit yi nga xam ne ñoo fi nekk. booy xool ñu bari si ñoom li leen intéressé du dara lu dul protéger les arrières maintenant bu fekkee ne tu le chef de l'État sortant la première des choses à c'est de protéger protéger tes tes te tes te arrières tes arrière yooyu bu ko leeroon ne ko bu ko leeroon ne ko Macky Sall bu ko leeroon ne ko Ousmane Sonko day dina dina nangu lu bari bari bari mu teg ci loxoom. amaana coow li mën na bari bëri xanaa xamoon ne dama lay jox benn ay révélation fii nga xam ko Macky Sall lu nekk def na ko pour jéem a waxtaan Ousmane Sonko. Ah lu leer laa la wax te man xam naa ci lu bëree bëri bëri bëri Macky Sall lu nekk def na ko pour waxtaan ak Ousmane Sonko pour jéem a xool naka lay waxtaanee moom duggante moom waaye Ousmane Sonko ci boppam moo bañ donc bu fekkee yow da nga jiite ab réew. bëgg waxtaan ak sa benn opposition c'est l'un des des opposants les plus radicaux nga bëgg nga gis na ne kooku waxtaan am moom sax mënul nekk sa diggante moom même par personne interposée loolu mënta nekk loolu dafay day titloo le chef de l'État saa ba pas dire aussi que ne Ousmane Sonko moo gën euh, Karim ou bien Ousmane sonk moo gën xalifa non non mais ñoom Macky Sall pour man li tax mu bëgg indi ñooñu mooy. dafa bëgg a dafa bëgg a chambouler le jeu politique actuel. reconfiguration reconfiguration bi la bëgg la bëgg la bëgg tegaat parce que fu mu nekk nii ñëpp xam nañ ne Ousmane Sonko ah nga wax mu neex la mu naxal la nga wax nga ñàkk a wax Ousmane Sonko moo fi jiitu ci moo moo moo mooy chef mooy chef naturellement chef de l'opposition. mais man beneen analyse bi may def mooy man dama gëm na ne euh, am na lu ma waxoon Ousmane Sonko bi muy dugg ci yi man waxoon naa ko naka yeewi du sa place li ma gisee yëf yi di mu demee les choses sa confirme fu mu nekk nii nag lu bari bari bari bari mënuguma ko wax damay bàyyi ba après les élections dinaa wax li ma war a mën a wax. da nga jàpp ne bis mën naa ñëw Khalifa Sall trahir Ousmane Sonko. parce que non dafa am loo xam ne du lu ñu wax léegi ci rajo waaye Ousmane Sonko toog na ma toog man moom ñu waxtaan ci ndax nit la boo xam ne quand même am na fu ma teg te dina ma déglu day déglu samay xalaat. te dañuy waxtaan lu baree baree bari bari bari ak fu mu mënta nekk man moom du ñu réeroo ci waxtaan am na ay mbir yu ma ko waxoon waaye mbir yooyu mu ngi doo mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi di ñëw gis nga boo nekkee dans le champ politique sénégalais dafa am lu ñuy wax réel politique réalité politique da nga koy xam sa Seck bi muy àndax xalifa Sall naan ko amul problème man maa ngi sa ginnaaw maa ngi sa ginnaaw maa ngi sa ginnaaw Idrissa Seck il savait pertinemment que ne 2019 Khalifa Sall du dem du nekk candidat te ñun bi ñuy après la ñuy doog xam ne ne ndaxte Idrissa Seck xamoon na lépp xamoon na ne Khalifa Sall du nekk candidat deux ans ci ginnaaw xaw ma trois ans ci ginnaaw en 2020 en 2019 da ko anticipé woon da ko anticipé woon loolu mooy la ce ce qu'on appelle la réelle politique la la réalité politique maintenant loolu nag junj doy na borom lu junj doy na borom xel après élection locale yi bu soobee suñu borom dinaa def euh, plateau lu bari parce que dafa am loo xam ne xeeñ na am na si leader yoo xam ne fi may waxee yoon yi des leaders de l' opposition ñu ngi si opposition bi juboo nañu ak Macky Sall ba pare après élection yi ils vont rejoindre Macky Sall. d' accord léegi euh, benn question ci euh, loolu pour ma revenir aat si pour ñu doog ko mën a jàll ci beneen. léegi sànq bi ma la déggee da nga wax ne Karim jël réew mi wala Khalifa Sall moo gën a arrangé Macky ndax Macky xam na fan la Karim di yem xam na fan la kalifa Sall di yem te xamul fan la Ousmane Sonko di yem te jàpp na ne usman Sonko tey bu jotee ci réew mi lépp lu war a leer dina ko leeral mais pourtant Sénégal yi li ñu soxla mooy ñi yoroon réew mi ëllëg loxo yu man di dem kooku bañ a am état d'âme ci àllalu réew mi niñ ko yore woon ngir mu leer mais foofu la kooku la Sénégal soxla waaw nga tey am état d'âme ci àllalu réew mi. c'est diamétralement opposé et et très différent de la chasse aux sorcières man li may wax xam naa ko c'est-à-dire nit ki mën na ñëw leeral li fi nekkoon lépp teg ka ci noo xamee ne ne. si yoon la. non seulement nu pa même bu dul sax teg ci yoon dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg waaye fexe ba Sénégal retrouver sa dignité sa dignité d'antan c'est-à-dire mooy que ne fexe ba Sénégal di nga récupérer alal bi tegaat réew mi ci raay. ba nga xam ne Sénégal demee du nekk ci ay coow loo xam ne jàpp kii sa genre règlement de compte bu méttee ah, méttee. méttee méttee méttee méttee bu dee Sonko mën naa def règlement de compte da nga jàpp ne ne la on est en politique te politique boo fa nekkee surtout fi Macky Sall toll nii dafa am lu ñuy wax protéger ses arrières Macky Sall coûte que coûte il va coûte que coûte protéger protéger xam ne américains yi wax nañ ko ne ko affaire troisième mandat moom bu mu jëmati kaw. Ah waaw loolu kay maa lay waxaat beneen mbir bu bu bees tax. américains yi xamal nañ ko ne ko affaire troisième mandat yi bu mu jëmati kaw donc Macky Sall troisième mandat moo la gën a xam ne ne pare na ci dootu ci waxati te mënatul dem troisième euh, troisième mandat léegi boo gisee lu tax mu soulever affaire amnistie Karim Wade ak Khalifa Sall il sait pertinemment que ne mënatul préparer fu mu nekk nii un dauphin. techniquement c'est impossible. léegi ñaari mbir mooy am wàññi doole Ousmane Sonko éliminer ko politiquement. c'est-à-dire yàq dossier xaw ma après élection yi man li ma ci war a wax dinaa ko ci wax fi mu jëm mooy jàkkaarloo Ousmane Sonko éliminer ko politiquement dem ubbi yeneen front jàkkaarloo ñeneen ñoo xam ne ci opposition bi boobaa Ousmane Sonko il sera tout seul. mais mais est-ce que tamit jàppoo ne bu doon éliminer jéem naa éliminer Ousmane Sonko mën naa bàyyi Karim mu feex bàyyi Khalifa mu féex mais en même temps. mën naa am négociation si ñaari cas yépp Karim Wade wala Khalifa Sall négocier ak Macky Sall mais tamit est-ce que tamit jàppoo ne élection sans Ousmane Sonko dina yomb ci Sénégal. day yomb élection sans Ousmane Sonko day yomb trop. mën naa nekk. non ba pare day yomb sax du jafe parce que Ousmane Sonko dafa def ay erreur politique yu garaaw ndax dafa am loo xam ne électorat naturel li nga xam ne téye nga ko mu nekk un acquis en ñun ñoo jàppale Ousmane sonk Ousmane Sonko tey fi mu toll ñii Sénégal yëpp di ko coow ñun dañ ci joué role bu bari bari man personnellement joué naa ci rôle bu bari bari bari bari te fu ma taxaw dama koy wax te mën naa ko wax dugal naa ci samay million kenn jox ma ko dugal naa ci samay nit dugal naa ci samay mbokk defal naa ko campagne samay mbokk samay waajuru bopp sax wër nañ dem ci àll bi dem Casamance dugg lu mbokk yëpp defal ko campagne ma gis ku mel ne le président docteur Abdoulaye Niane ñàkk ci alalam bu baree baree bari bari bari bari bari bari rey boppam ngir Ousmane Sonko am lu mu am ma gis ku mel ni Bruno Derneville ñu ñoo doon jël jël avion dugg fay ay billets nit ñu bari bari bari fu Ousmane Sonko dem ci Sénégal ñu dem foofu man mii def naa ay tournée France Italie kanadaa def naa Europe bi Asie def naa dëkk yu bari ci àdduna bi avec mes propres moyens pour campagne la Ousmane Sonko ñun waa jot na tey Ousmane bi ñuy ànd Ousmane Sonko ñu bari bari dañ leen ne yéen da def kii amagul woon woon sax le plus fort ngeen di ànd ak moom ñun dañ ko bañ gëm ko ànd ndax moom ci ngor waaye bi mu demee ba taxaw ba am li mu bëgg ba nga xam ne ne taxaw na dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg lu mu def daa xëy xëy rek bañu ba fi may waxee yow nii loolu kenn mënu ko justifier moom ci boppam man laaj naa ko ko laajati ko laajati ko waxuma ci dara lu leer. Ah, te te te déglu ma rek te waxuma ci dara loo xam ne ne c'est convaincant loolu pour man erreur politique la mais beneen erreur politique bi mu defaat mooy bi muy génn ci coalition jot na dafa waxoon ne ne coalition jot na de. lu tax ma génn ci pas moom mais communiqué bi ñoom bi ñu def joxe nañ seen raison waaye dañoo dañoo joxe information comme quoi dafa am ñu nekk ci biir jot na ñoo xam ne dem nañu waxtaan am Macky Sall loolu la ñu waxoon te demoon waxtaan ak Macky moom xam ne leen Pierre Goudiaby Atepa la Aboubacar Camara mais tey boo nee damay génn si jot na parce que dégg naa ñoom dañoo waxtaan ak Macky Sall yow nga delluwaat ci ginnaaw dem àndax ñoo xam ne ñooñu ñu leer nañu ne am na ci yoo xam ne bëgguma ko wax ndax ma ko waxee wax ji day doy waar waaye leer nañu ne moom leer na ko ne ko leer na ma ne am na si ñoo xam ne tey ñi ngi ci biir foofu. yeewi yeewi te moom leer na ko leer na ma ne am na si ñoo xam ne ñi ngi ci biir yeewi ñooñu waxtaan nañu am ak ndékki nañu am ak Sall añ nañu am ak reer nañu am Sall. am na si ñoo xam ne man mën naa la limal lu tax ay détails yu ndaw ñoo tax ba fi may waxee yow ni dugguñu te moom xam na ko moo a ko gën a xam. donc Ousmane Sonko dafa jaxasoo ak ay ennemis donc waaw yow ay jegeñaale Macky Sall dañ ko infiltré bu baax a baax a baax baax a baax a baax a baax a baax parce que mënoo woon xeex li suba nga ànd ak ñoo xam ne ne nga xam ne ne moo xam ne moo tax ma ne la donc loolu rek boo ko defee loolu politiquement yaa ngi rey eh, yaa yaa ngi rey sa bopp léegi suba ñi ngay àndal mooy ànd suppu kàññ ànd suppu kàññ mooy lan après ñoom yow li nga amoon as néew dinañ ko tas nga war a demaat liggéey beneen beneen liggéey bu bees le tànk ngay taxawaat pour mën a liggéeyaat pour amaat ak bi nga am bi bi bi bi nga amoon fekk na ne béy wéy na mbuus. d'accord léegi euh, Gaoussou comment wax nga seen diggante ak Ousmane Sonko yéen waa jot ni jot na ak ni ñu ko jàppale woon ci élection présidentielle 2019 mais tey dañu gis ne même yéen bi mu séparé woo ak yéen ci la événement mars yi am. Mhm. te bu boobaa te booba amoon na ñoo xamante ni tey résister woon nañ ànd ak Ousmane Sonko mhm. est-ce que gisoo ne résistance boobu man na wéy ëllëg bu jotoon ñu ne ko Ousmane Sonko doo bokk ci élection. waaw mais xam nga résistance boobu résistance tappale la rek lu tax ma ne résistance tappale man problème mu mars yi ñun waa jot na kenn gënuñu ci taxaw man bokk man Ousmane Sonko xam na li may wax ndax ci rajo laay wax gëm naa ne ni ma ko taxawee taxaw ci fànn yëpp bariwul ñu ko ci taxawee ci ñu ko wër ñooñu ñëpp bariwul bu amee sax gisuma ko taxaw ko ci fànn yëpp laa la wax amul fànn gu ñu bàyyi taxaw nañ ko yuuxul nañ ko xeexal nañ ko demal nañ ko fi ñu ko war a demal waxal nañ ko fi ñu ko war a waxal eggal nañ ko foo xam ne moom leer na ko mënu fa woon egg def ko yàlla tax ak sunu coloré tax ak sunu diggante tax donc bari na xam nga politique dafa garaaw gis nga euh, gars yi boo ànd ñoom ci ngay comprendre lu bari li war a xaw feex ñaari at ñoom xam nañ ko tey calculer nañ ko ba xam fi ñu jom dañu ñëw approché la tout en sachant que ne ñoom li li tax ñiy ñëw affiché wu ak yow photo wu ak yow dox ak yow xam nañ ko man situation bi xew nii wallahi azim bi ma koy wax yenn Ousmane Sonko ak kilifa yenn kii war na ñaari ab cere. ban situation. non ànd gi ñu ànd ak yenn gars yi ak ni mu demee ni ñu ko mbëddee dama lay wax benn kaa Abass Fall bu Pastef damay tudd tur usman Sonko Moustapha Sarré ak yeneen cadre Pastef xam nga rajo laa nekk tur ay tur laa tudd da leen di laaj man bi ma leen di wax naan leen yéen. électorat bi ngeen am ndakaaru Khalifa Sall dina ko nangu ci yéen mu neex leen ci nii paa ci nali ñu demoon non loolu mënta nekk mën na ko dina ne naka lay nekkee mooy leen Barthélémy Dias fan yii nii la leen def teg na leen choc boobu waxaguñu sax ay waxi élection mooy sa coow lu njëkk la parce que j'avais vu venir bi ma gisee yenn paa yi ci laa ko wax moom Ousmane Sonko mën na ko ñii fi ñu jëm eh, mooy élection locale yii di nar a ñëw. mooy déstabiliser ko. mooy mooy élection locale yii di ñëw nar a ñëw dinañ la dugg duggante la. politique la am li ñu bëgg suba ñu taxaw fële moo tax ma ne la am na ci loo xam ne dama koo wax ak Ousmane Sonko wax ko ak ñi nga xam ne dañoo nekk ci moom après élection présidentielle yi la lu bëri bari bari bari du leer ndax Sénégal dama jàpp na ne ñun ndaw ñu ñoo ko mën a defar Sénégal ay valeur ñoo ko mën a defar pas ay politique politicienne te réew mi dafa bëri lool lool lool lool politique ku tappale réew mi dafa bëri lool lool lool lool lool lool ay dil réew mi dafa bëri lool lool lool ay politique boo xam ne politique naxante la c'est-à-dire Sénégal ñoru leen avenir u Sénégal ñoru leen ni réew mi di doxee ñoru leen seen i intérêt crypto personnel kese moo leen moo leen fi moo leen fi bàyyi. d'accord léegi euh, jërëjëf euh, Gaoussou Koma yow nga bokk ci coalition wàllu Sénégal léegi coalition wàllu Sénégal yéen am ngeen candidat au niveau de Dakar euh, Doudou Wade. est-ce que njortu ngeen ne euh, man ngeen a gagné euh, ville de Dakar. waaw njortu nañ ko am nañ ci yaakaar du yomb nag du yomb parce que euh, Dakar am na nu mu configuré woo te coalition Wallu Sénégal PDS bokk na ci ñi nga xam ne ñoo fa ëpp doole. te booy xool élection yi passé PDS demul woon dakaar pour mën a xam réellement lan la amoon pour mën a mën a mënoon posé wu. mais ndakaaru électorat ndakaaru ah électorat yeneen yeneen yeneen zone yi du benn ndakaar électorat bu complexe moo fi nekk c'est-à-dire à tout moment mën nañ changer lu tax à tout moment mën nañ changer mooy bu dee Benno Bokk Yaakaar ñoom jaxasoo nañ rajaxoo nañ bu dee Yewwi Askan Wi pour waa ndakaaru mën na jiital Barthélemy Dias tamit mën na mën na bañ a yomb ndakaaru am na loo xam ne dañ koy soxla mooy maturité ndakaaru am na looy na loo xam ne dañ koy soxla mooy koo xam ne leer na leen ne bu ñëwee mën na li ñu soxla ñoom mën na ko def te le président Doudou Wade Sénégalais yépp xam nañ ci moom ak ndal Sénégalais yépp xam nañ ci moom ak xam-xam waaye sénégal yépp xam nañ ne le président Ablaye wàdd ah Karim wàdd ñoo nekk ci ginnaawam te bu dee lii développé ndakaaru gëw ma ne dans l'histoire politique du Sénégal li Ablaye Wade def Dakar nit def na ko te nit mënu ko faa def te gëw ma ne tey li Karim Wade jàppal euh, bi mu nekkee ci ci nguur gi def ndakaaru ànd ko son père le président Ablaye wadd gëw ko donc moom le seul fait que le président Ablaye wadd ak Karim Wade nekk ci ginnaaw Doudou Wade man jàpp naa ne si Doudou Wade réussit à faire une très bonne communication s'il réussit vraiment à faire une très bone communication il pourra avoir beaucoup de choses à Dakar. lépp mu teg ko ci bilan Ablaye Wade li mu fi def. d'accord jërëjëf euh, Gaoussou Koma yéen a ngi déglu réew mi FM seen émission pencum réew mi Gaoussou Koma nag euh, mu bokk ci coalition euh, wallu Sénégal nekk candidat ci Yëmbal noor mais Gaoussou yow. Euh, yaa ngi ci coalition wàllu Sénégal te ku ko tudd sa xel dem ci Karim Wade ndax tey bu buñ ko amnistie woon àdduna mënul soppi euh, ba ngeen coalition ngeen ànd comme da nga yor sa parti faxas waaw xam nga man damaa yor effectivement sama parti mais sama parti dafa bokk ci benn coalition bu ñuy wax coalition jot na te jot na ñun ak waa PDS am nañu yaakaar ànd ba 2024. ah bon waaw man de. mos naa ñeneen ni ànd ndax ñeneen ni mos naa ñu bari waaye waa PDS bu ma gaay yi déggalee mën nañ ànd ñoom ànd gu sori lu tax ma wax loolu mooy PDS ay nit ñu xam politique ñoo fa nekk PDS ay nit yoo xam ne boo eggee si xëccoo ak ñoom nag dinañ xëccoo xëccoo boo xam ne doo da nga naan waa ñii moom mooy loolu waaye bis bu la yàlla defee ba nga gañe ba jiitu di nga gis ay nit ñu démocrate moo tax maa ngi doog a comprendre la moo tax ñu ne ce sont des lu tax mooy man sama kaa jël dans la commune et dans le département et ce que xam nga ne commune bu Yeumbeul noor amul benn membre amul benn responsable te pourtant am na ay responsable yoo xam ne ñoo ma fa gënoon siw ñoo ma fa ëpp doole ñoo ëpp ñoo ma ëpp moyen ñoo ëpp lépp nekk PDS nekk foofu waaye ñoom ñëpp ñu ngi may jàppale jàpp boo xam ne mal day taani boo nevee boo demee tey au niveau départemental ma nekk fa man ak sama sœur Fat Sow mën naa ne lu baree baree baree baree baree bari bari bari bari bari bari bari dañoo delluwaat teg ko sama loxo lu ci bari bari bari jiital ma ci lépp respecté ma déglul ma déggal ma ànd ak man ci ànd goo xam ne da lay leer na ñii ànd gi ñu ànd ak yow ànd ànd bu sincère la ñii ànd gi ñu ànd ak yow ànd ngor la loolu nag mooy politique loolu mooy politique te ci loolu loolu Sénégal ci loolu la ñuy xaar Sénégal xaaruñu ñi ci ay xëccoo Sénégal xaaruñu si ay xiiroo Sénégal xaaruñu si ay guerre de positionnement maintenant ku nekk nag mën nga mën nga ut ku nekk mën nga dem uti ji ku nekk mën nga dem sàkku ji waaye PDS man de gëm naa ne buñ leen jàppalee surtout le président Karim Wade ñëw waxuma ne ñun de waaye sénégalais yu bare bare bare bare bare dina ñëw lu tax mooy euh, sëñ Abdou Khadre le président lay wàdd waxuma la Sénégal waaye Afrique fi mu toll ni ginnaaw yàlla loxoom dugg na ci lu bëree bari bari bari bari bari le président Karim Wade li doxal réew yàlla def na sutural na ko am na ko xam nga réew moo wax benn affaire li koy doxal relation internationale mooy doxal réew bu ci kenn nax réew boo mënul dem ba ñi nga xam ne ne ñooy see nawle su l' international nawloo la am fu ñu la teg xam na ne yow mat nga li nga doon ñu jox la ñi liggéey yow réew moomu mën nga si am jàmm boo gisee lu tax suñu chef d'état yu bari bari bari bari bari nasaraan yi duñu leen nawloo mooy que ne à la base dañuy nekk ñoo xam ne ne ay doomu baadoola lañ amuñu dara yor réew mi commencé seen compte offshore yi ak bitim réew ni ñuy yëngatoo ak li nga xam ne ne mooy xaalis bi nga xam ne dañ koy sàcc day bari lool lool lool lool loolu nasaraan yi duñu la respecté ci loolu tubaab ngir mu respecté la ndax man mën naa ne ñaar fukki at yi yëpp ci ginnaaw yëpp maa ba tey ji ñoom laay liggéey tubaab yi laay liggéeyal waa bitim réew laay liggéeyal donc dama leen xam bu baax a baax. mais est-ce que Karim am na avenir politique ba tey nga ne tubaab. ku muy respecte mooy koo xam ne ku intègre la ku gëm boppam la waa je pense que l'avenir politique du Sénégal aujourd'hui est entre les mains de Karim man fi ma toll nii man loolu laa gëm. mais est-ce que yow bu la PDS comme ni nga ko waxee sànq yëmbal noor nga ñëw fekk fa ñoo xamante ni ay leader du PDS lañ est-ce ñu la jàppale woon tey ba nga nekk maire bu yëmbal noor élection présidentielle ñëw. Euh, Karim Wade nekk candidat est-ce que bu ñu la sollicité euh, yeneen ñi ñeneen ñi tamit sollicité la euh, ñu dul PDS boobaa lan mooy nekk sa taxawaay. man wax naa la ne ñun waa jot na peut-être da nga ñoo xamagul da nga ñoo kotuwaayal waaye da nga ñuy laaj Ousmane Sonko ñun bu ñuy ànd ak yow dañuy ànd ak yow ba jeex takk takk takk takk takk am nañ mbooloo mi am nañ appareil bi te ku ñu dugalanteel di nga xam ne ne am nañ ba appareil bi am nañ xam-xam bi waaye li ci gën a jafe. li nit di am mooy am nañ ngor bi tey dañoo ànd ak PDS àndax waa AJ/PADS àndax waa CRD bul fàtte ne Mamadou Lamine Diallo mu ngi ci biir la premier ministre Abdou mbay mu ngi ci biir ñeneen ak ñeneen ñu ngi ci biir ñooñu ñu àndal ñun du nangu ñooñu ñu gën ñu gore te ñun dañoo fas yéene ànd ak waa PDS pour soppi réew mi fii ba 2024 di ci profité di ñaanal le président Abdoulaye Wade yàlla nag fi yàlla yàggal ba ci kanam kanam. d'accord léegi euh, Gaoussou Koma au niveau de Yeumbeul Nord euh, nan ngay def ba gagné. waaw euh, Yeumbeul Nord sëñ Abdou Khadre man dafa am loo xam ne dama ko fa liggéey mu ngi bëgg a yàgg moo tax fan yi gars yi naan waa waa ji fu mu nu mu jaar nu mu jaar nu mu jaar parce que man dama yàgg liggéey ci wàllum social. Mm-hmm. ci yëmbal noor social bi mu ci doon liggéey boolewuma si ah coow lu bari. démb rek démb benn armeer la yëmbal noor am armeer yooyu làmp solaire yi fa nekk ay lampe solaire yu mag a mag a mag a mag yu cher man maa jël sama propre xaalis ma dugal ko foofu ma defar ko li ma defar tey ci yëmbal noor ci social dimbali si jaam yi jàpp nekk un acte de développement jàppale jàppale mbootaay yi ay jigéen jàppale ay ndaw ñu am bourse dem bitim réew jàppale ay ndaw ci ci wàllum sport tey ñi nekk ñoo xam ne ñi ngi teral seeni waajur jàppale ay mag ñi loolu bi ma koy liggéey ak léegi du tey mais loolu boo ci boolee man li ma am man sama électorat kese du caaxaan boo ci boolee ak électorat PDS te PDS ñëpp xam nañ ne PDS du lu ndaw à Yeumbeul Nord nga boole ci électorat AJ/PADS aj ñëpp xam nañ ne du ñu duñu kii nga boole si électorat un autre avenir avec Ndiayal Sall sama sama sama xarit sama doomu nday di ko nuyu nga xam ne ne un autre Ndiayal Sall ñooñu lu ñu yor du ay caaxaan nga boole si électorat une une partie de république des valeurs avec sama jigéen laal yoon <laughs> Ndeye Fatou Diagne nga boole ci électorat société civile bi nga xam ne ñëpp xam nañ ne yëmbal électricité civile bi bokk na lu ci lu ci lu ci lu ci lu ci ëpp doole mais ñooñu ñëpp boo leen boolee ab mouvement yeex association yi nga xam ne bés bu set ñu ñëw. dama ne la ñun dañuy dóor beneen affaire bi dañuy influence Ablaye Wade influence Karim Wade. waaw non beneen affaire bi ci doy bi ci gën a doy waar mooy ñoom opposition bi dañoo def fan yi passé sondage def seen i pexe def seen i pexe sondage yooyu ñun midi lañ ko yëg balaa sondage yi jeex. dóor nañ leen dóor yi méttee méttee méttee méttee méttee méttee méttee méttee. ñu ne ko doon def. opposition bi gars yi dañ ko def au niveau de Yeumbeul Nord mais dama ne la man maa jël pay ci sondage yi benn ñaareel bi mooy tey boo xoolee Yeumbeul Nord parti au pouvoir man la ñuy sànni xeer man la ñuy xas suba ngoon guddi bëccëg réseau yi. parti am nañ fa candidat parti au pouvoir mooy mooy maire le maire sortant daaw de daaw de terrain mooy waa ji jaay terrain Yeumbeul bi yëpp daaw de jaay boo xoolee tey ba pare li ma la fàttee wax mooy tey projet yi gën a ambitieux Yeumbeul Nord man maa ko fa indi te boobu Daouda Ndiaye bi ma bàyyi ma fenn. benn bokk yaakaar yow yaa leen war a attaqué mais ñoom nan lañ lay attaqué. moom waaw parce que foofu laa lay wax man dama ne gars man li ma jaaxal ma dafa mel ni man maay maire le maire sortant mm-hmm. parce que man maa waroon attaqué mm-hmm. mais ñoom man ñoom may attaqué man opposition bi dama attaqué c'est-à-dire man je suis la cible de tout le monde. opposition bi mooy ñan. opposition bi mooy waa bokkoo tey boo déggee opposition bi mooy waa Yewwi bu ñu xëyee suba ba ngoon jot man la ñuy attaqué yeneen yeneen yeneen coalition de l' opposition bi man la ñuy attaqué le parti au pouvoir man la ñuy attaqué lu ñu commencé wax dañ ne woy waa ji dëkk fii patati bu ñu ba ci biir xam ne man bi ma dëkkee foofu man na fukki at juróom sama doom sama taw fa la juddoo te sama taw a 14 ans ñu waa ji fi kër gis na ne man ay kër sonaluma am naa ay këri këri këri këri kër kër surtout foofu ñu dem ba ci biir ñu ne waa ji dafa jox 35 millions waa PDS jënd leen ñu dem ba ci biir xam na ne loolu taxawul ñu dem ba ci biir ñu ne waa kii franc maçon la dem ba ci biir ñu ne waa ji de euh, benn dóorkat la rek patati am na benn waay boo xam ne mat na fukki at ne na waa ji 500000 waa jooju sax porte naa ko plainte commandant gendarmerie bi woo na ko mais dafa daw kenn mënu ko gis kenn mënu ko dégg te loolu dinaa ci dinaa ci naa ci naa ci waxaat ñu dem ba ci biir fu mu nekk nii lu ñuy wax euh, barki démb ñu ne dafa am koo xam ne jabaru jàmbur la dama koo tooñ mais démb lu ñu wax moo gën a garaaw nee nañ man Cheikh Béthio dafa maa jox 1 milliard bi mu nekkee France avant muy gaañu pour ma jox ko sëñ Saliou 1 milliard yooyu laa jël di ko séddale ci ci ci mbooloo mi léegi nee nañ man dama nekk di jënd population bi aloo que ne man xaalis sax du ma ko joxe. ma léegi sos yooyu noonu accusation yi pour lan la. waaw pour parce que dafa am yëmbal li ñuy wax le foncier. le foncier de yëmbal affaire bu garaaw laa lay wax nii nag loolu laa gënoon bëgg ñu dugg ci yëmbal dafa am suuf suuf soosu Daouda Ndiaye le maire de de l'APR le maire sortant dafa oo tous les leaders de l'opposition doo man mii propose ñu ay suuf suuf yoo xam ne benn bu nekk 20 millions bu la su joxee ñaar mbaa ñett sëñ bi millions la ñi jël jël mais man moom jëluma te am naa fitu taxaw ne jëluma ci laaluma ci suuf si samay loxo dafa set wecc amul dara loo xam ne war nañ ma ko mën a taxalee. léegi loolu si jublu woon. léegi non da bi muy joxe suuf soosu dafa bëggoon taxal gars yi day politique nag dafa bëggoon fexe ba nga xam ne ñëpp bu ñu lekkee. gaa yi gaa yi dinañ wax lépp ba mu des si suuf si suuf si amul benn leader booy dégg muy taxaw suuf si muy wax si suuf ko doon man même ñeneen ñi nga xam ne wax nañ ci fan yële passé gaa yi dañ leen ne mais yéen jarul ngeen di wax parce que mos ngeen léegi man kese maa am droit man kese maa ciy wax si suuf si parce que alalu yëmbal parce que yow man dama ne mënoo ne da ngay bëgg a jiite yëmbal ba oto bi ngay dawal waa yëmbal ñoo tax nga am ko parce que suufu yëmbal nga jël lañu la jox nga jaay ko loo xam ne si population yi waroon dem mënoo ne yow dangaa bëgg damaa bëgg doxal yëmbal ba pare li ngay dundee lépp daanaka waa yëmbal loolu ko jox yow kooku bu ñu la joxee nooy développé yow mënoo développé sa bopp ba pare bëgg ne da ngay développé yëmbal loolu c'est incohérent ba tax na opposition bi nag am na si ñoo xam ne wax dëgg yàlla ay nit yu baax lañ ñu am ay valeur lañ ñu ngi ci opposition bi samay xar lañ j'ai de bon mais dam ñu baree baree bare bare bare ci ñoom suba ngoon guddee bëccëg man la ñu mais lu tax ñu may attaqué alors que man je suis pas le maire je ne suis simple candidat mais je dérange. d'accord je dérange et à tous les niveaux. Euh, frère euh, benn nag jigéen Daouda Daouda Ndiaye kooku jigéen lool sax bokk naa ne bokk na ci ki ko gën a jigéen daf ma woon ma léegi leer na ma nag ne élection yi yow yaay jël deuxième. ma ne ko kuy jël premier mu ne benn bokk yaakaar ma ne ko lool boo ko waxee loolu leer na ma man léegi ne man maay jël yi lu tax maa koy jël. parce que yéen moom dinaa leen dóor dóor yu métti mais am na ci loo xam ne bëgg naa tamit attirer si attention waa yëmbal waa Kër Massar est-ce que xam nga ne carte d'identité yu ñu yoroon Kër Massar département bu Kër Massar dañoo jékki-jékki démb rek ñu indil ñu ay carte yu bees ne képp kuy voté tey département bu Kër Massar carte d'identité bu njëkk bi baaxatul donc ñun boo xoolee yëmbal noor Kër Massar presque 1 million de cartes d'électeurs war nañu ko récupérer fii ak 40 jours même pas 40 jours 1 million yëmbal Nord 50 000 cartes électeurs mooy que suspicion de fraude am na ah ñu ngi préparé pour sàcc élection yi à Kër dans le département de Kër Massar ñi ngi préparé pour sàcc élection yi dans la commune de de de de Yeumbeul parce que yow mënoo bàyyi ba à la veille ñi ne élection yi des na 45 euh, jours nga jékki-jékki nga ne képp koo xam ne da doon voté carte bi mu naan voté baaxut carte yu bees loolu nag ñun opposition bi duñ ko seetaan commencé naa oo certains membre de l' opposition dinañ ci taxaw ñun waa Sénégal waxtaan nañ ci réunion nañ ci dinañ dem gisi ji préfet bi nañ dem gisi ji les autorités locales waxtaan ak ñoom wax leen ne ne li ñu bëgg def tappale yi ñu bëgg def ñun duñ ko nangu tey duñ ko nangu. d'accord léegi Gaoussou Koma lu jëm ci euh, cadre unitaire de l'islam violence politique bi euh, yow lan mooy sa xalaat ci charte boobu ak violence politique bi. waaw mais loolu dama koy rafetlu parce que man dama bokk su ñi nga xam ne quand même violence man ku ma xam-xam ne ne man violence dama koo xeex yow ma ci xeex ko ci Sénégal. dama ko xeex ci bitim réew ci instance yu gën a mag si wàllum sport bokk naa ci daanaka africain yi ñu jëloon ci àdduna bi pour xeex violence violence man musuma ko nangu tey musuma ko nangu ëllëg maintenant cadre unitaire boobu man je les comprends pas parce que yow boo bëggee wax ne nañu teg violence ci suuf mais waxtaana la ànda yu mbi gi violence Sénégal ku fi indi ku dul Macky Sall Macky Sall fi indi violence amul keneen ku fi indi violence ku dul Macky Sall Macky naka la fi indi violence Macky Sall tey mu ngi tëj ses adversaires politiques parce que ñooñu dañuy déranger dans un pays normal ñëpp dañoo war a dem aux élections normalement Macky Sall day def élections yi saa yu ko neexee saa yu ko naqaree mu def élections yi violence weesuwul oo xam ne xamuñu nu mu demee nga ne leen da ngeen a a dem uti ji ay carte électeurs yu bees loolu ci ci ci violence la bokk violence bokkul ci nga jël fichier bi ba jusqu'à présent opposition bi amuñu accès ci sol violence weesuwul ci tey ay nit di def ay malversation yoo xam ne yu jéggi dayo la yow doo leen violence weesul si Sénégal nit ñi di souffrir Sénégal nit ñi sonn nit ñi nit ñi xiif nit ñi mar yow amoo dara looy def lu dul de la politique politicienne sa à violence bi Macky Sall di exercer ci population bi jàpp naa ne loolu lañ dem war a waxtaan ak Macky Sall ne ko hey dañoo bëgg nag nga teg sa tànk nga oo opposition bi yëpp oo kilifa diine yëpp nga waxtaan ak ñoom ndax ñun sëñ bi mu ñu oowee. bi muy wootee di yoon di yónni sëñ Basiiru Proxaan man bokk naa ci raar leader yi nekkoon ci saal boobu ak Abdoul mbay Khalifa Sall Ousmane Sonko ak ñooñu waaye bi ñu ñëwee li sëñ bi wax ñun dañ ko dégg te si saa yi lañ ko nangu loolu rek loolu rek ça montre que ne ñun opposition bi pare nañ pour Sénégal am jàmm parce que Sénégal am jàmm ñun Sénégal lañ dëkk mënuñu daw génn réew mi ñu daw dem fenn Sénégal lañu nekk suñu njaboot Sénégal lañ nekk waaye ñoom ñi nga xam ne ne ñoo nekk ci réew mi yor alal réew mi am des biens un peu partout à travers le monde ñoom ñoo war a lijjanti ba Sénégal am jàmm waaye violence pour man ñi si ñeneen beneen côté bi lañ war ñoo koy exercer par l'opposition. mais lu jëm ci euh, ñetteelu mandat kon foogoo Macky Sall def ko. non d'après man information yi ma ci am te information yi ma ci am ay caaxaan. Macky Sall euh, waa bitim réew duñ ko seetaan Afrique ñu duñ ko seetaan te ñooñu sax sori nañ waaye maa la wax ne la yaa ngi fi maa ngi fi. Mm-hmm. bis bu makki Sall waxee waxi troisième mandat dinañ ko génne réew mi ci nii mbaa dinañ ko génn ci naaw gis nga Abdou Khadre réew mi papay bàyyi kenn moomu ko réew mi maam kenn moomu ko réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk moom. Macky sàll bu doonee lu mu doon nekk lu mu nekk sa barke la sama barke la barke sénégalais yëpp Macky Sall daa war a delloo njukkal sénégalais yi. Macky Sall la wartu mën na yàpp sénégalais yi ba naan day wax waxee troisième mandat pourquoi parce que troisième mandat bi que le président Abdoulaye Wade waxee sénégalais yu bare bare bare dee nañ sénégalais yu bare bare bare dee nañ moom ci boppam toog na devant tous les sénégalais mu wax ci waxi troisième mandat moom ci boppam bokkoon na ñi doon xeex si suuf bi doomu sénégalais yi di dee pour waxee troisième mandat tey bu naree bàyyi ba tey ne day wax ay waxi troisième mandat non du ko wax man gëm naa ne Macky Sall du ko wax Macky Sall il est beaucoup plus intelligent que ça parce que réew mi fu mu toll nii réew mi nu mu demee nii eh, moom mi nga xam ne moo waxoon ne ne nul ne peut plus de deux mandats consécutifs mm. ñun ñi nga xam ne ne nekkuñu ay experts ou bien ay apprentis juristes sax <laughs> xam nañ ne ne loolu mooy mooy mënatul nekk donc xamal na ne réew mi moom waxi troisième mandat doot ñu ko ci dootuñu ko ci wax te bu ko bés bu ko waxee dina xam ne ne dina gis lu mu mës a gis loolu moom man man waxuma ñeneen ñi mais man maa la ko wax sama waa parti. jërëjëf euh, Gaoussou Koma euh, pour laaj bu mujj bi rek yow léegi yaa ngi xëccoo yëmbal noor. Euh, yëmbal noor ak département. département Kër Massar. mais yow tey est-ce que am nga programme boo xamante ni tey am nga ko ci yëmbal noor loo xamante ni tey ci compétence su maire la waaye. loo xam ne tey lu réalisable la yoo xam ne loo fay def ban lan nga proposé waa Yëmbal Nord ak Kër Massar. waaw man dama wax ne ne euh, pour nga développer commune il faut nga nekk koo xam ne yàlla dimbal na la suur nga tuuti amoo ay milliards waaye suur nga te bés bu la yàlla joxee commune bi yow li nga xam ne mooy budget commune bi alalu commune bi yow soxlawoo ci dara man tey leer na ma ne yàlla dimbal na ma sutural na ma ba li Yëmbal moom man soxlawu ma ko loolu mooy benn ñaareel bi. loo jaay tamit suufu Yëmbal. soxlawu ma ko. parce que ay suuf moom man maa koy maye waaye du solo ma suuf yëmbal ñaareel bi mooy boo bëggee doxal commune dafa am lu am solo mooy coopération internationale man tey mën naa ne bokk naa si sénégalais yi nga xam ne ñi ngi ndamoo réew mi da leen di ndamoo su à tous les niveaux tey projet yi nga xam ne ne Sénégal am na ko muy terre muy leneen ak leneen lu bari bari bari bari ñun dox nañ ci war nañ ci lu ñu ci war a wax est-ce que xam nga ne tey terre bi ngay gis nii dañ ñoo ñàkk respecte la jeunesse sénégalaise mais tey man sama société mooy la seule ou bien l'une des rares sociétés sénégalaises boo xam ne am na compétence pour doxal ko à tous les niveaux te def ci loo xam ne ne dinañ gañaloo sénégalais yi ay milliards milliards milliards ci rajo laay wax ndax dama dem bitim réew daal di dajale africains yu pas sénégalais yi africains yi ëpp xam-xam ci wàllum ferroviaire mu indi leen kër taxawal ak ñoom benn société bu mag di liggéey ak ay Bénin ay Mali ay Conakry di liggéey liggéey ak dëkk yu bari mais Sénégal tey bi mu ñëwee waxtaan ci ak ñoom ñi jël kilifa yi nga xam ne ñoo manque terre bi waa SENTER ñu boole max euh, ministre beex boole max seen direction technique kilifa yëpp gis nga bi ñu toogee ñun ba def suñu exposé wax leen li ñu mën ak ni ñu nar a gañaloo sénégalais yi ñoom dañoo yéemu ci yàlla ñu defal ñu kayit yëpp yi nga xam ne war na mën a tax ñun ñu yor yëf waaye bi ñu demee ba ci biir dañoo gis na ne comme que man def je suis dans l'opposition jox ma alal bu doy nii arrangé wu leen ñi yi fi jaxase ko xam nga yëf yi kan lañ ko jox benn tubaab bu ñuy wax Denis Delajeu jël ay ay milliards milliards nga jox ko tubaab te mu leer na la sa doom waa réew mën na ko liggéey gañe loolu lu féete kaw loolu leneen li nga xam ne moom laay préciser mooy luy doxal commune ñun def nañ ko suñu programme mais dama lay wax ne la man dama koo commencé te nekkaguma est-ce que xam nga ne Daouda Ndiaye maire yëmbal Nord man maa ko njëkk indil ay partenaire maa dem Espagne indi fa ay partenaire yoo xam ne bi ñu ñëwee dama ne ko monsieur le maire lenn kese laa soxla mooy dama yor association boo xam ne sur le plan international man maa ko jiite association bu taxaw la bu am doole la ñi pare nañ tey ay lampadaire solaire ndax yëmbal dafa bëri insécurité démb rek nga dégg ne am na benn charité boo xam ne dañ ko rendi ay yëmbal rendi lañ ko def chaque jour ñu rey démb maa ngi woon tribunal pour jàppale ay ay ay xale ci affaire yooyu bés bu set nga dégg ne yëmbal rey nañ ay ni pourquoi insécurité totale la am man bokk naa si ñi ñëw toog indil ko dem ànd tubaab yi ñi fay seen billet avion ñëw toog bureau ma toog tubaab yi toog maa ngi foto yi ak lépp bi ñu toogee lu ñu wax daaw Daouda Ndiaye dafa ne moom ñooñu dañ ne ko pare nañ pour indi fa ay lampadaire solaire yoo xam ne benn lampadaire mu ngi jar 2000 euros mmh. nga xam ne loolu dina mën a dimbali yëmbal lu bari bari ci ci ci leeraay mmh. beneen projet bi gënoon am importance mooy sax ñooñu pare woon nañ pour defar centre commercial bi gën a moderne ñu Dakar à yëmbal nga xam ne ne ku soxla soxlati jën dootoo génn yëmbal ku soxlati ay lijum ay fruits dootoo génn ci yëmbal waaye leneen li mooy wàllum sport bi pare woon naa pour defar fa tere football boo xam ne même équipe national bu Sénégal bu soxla te ay entraînement ay yooyu yëmbal la ko doon defee yooyu yëpp mais ñi ma ci gën a xeex maire bi sax xeexuma ci yenn xeex yu métti yi mais ñi ma ci gën a xeex ñi nga xam ne tey dañoo ne dañoo soxla maire bi est xam nga am na ñoo xam ne dañoo soxla maire bi zone boobu dañu fee am ay suuf xeex ma man mi ci projet boobu am na si ñoo xam ne toog nañ daanaka ay juróom benn weer xaw ma juróomi weer tudd ñu ma ci. d'accord tey ñi nekk ay ma tey ñi nekk ay maire donc pour juste pour vous dire que ne bu dee liy développé yëmbal waxuñu nag ne dinañ mën a def lépp ndax nit ma mënul def lépp waaye lu leer ba leer ba leer mën nañ soppi xar-xaru yëmbal lu bare bare bare bare bare bare bare bare jërëjëf yi Gaoussou Ka ñu la sant di la gërëm waaw maa ngi lay sant sëñ Abdou Khadre di la gërëm di di remercier waa Rewmi FM hmm. di leen ñaanal yàlla defal leen jàmm euh, li ñu fi waxtaane yépp euh, lépp loo xam ne ne positif na nañ ci dañ ciy sant yàlla lépp loo xam ne nag euh, nekk na loo xam ne lu jagas la nañuy xam ne ne sunu matadi la rek di si di leen sant di leen gërëm di leen remercier encore une fois jërë ngeen jëf Eh, jërë ngeen jëf mbokk yi loolu moo nekkoon seen émission pencum réew mi ngeen di si ànd ak Abdou Khadre Seck samedi bu jot 15h 16 ñu invité woon Gaoussou mu nekk euh, candidat ci Yeumbeul Nord ci coalition wàllu Sénégal Mamadou Diaw Diallo moo nekkoon ci wàllu machine bi jërë ngeen jëf jàmm jàmm.